dëgg la tey bu ma laajee Eumeu seen ak Balla Gaye ku ci nekk sa foor ak sa li nga xamante ni foo nga foorewul si ñum ñaar ñëpp ñaari mbër yëpp bon comme ni ma la waxoon ne kii euh, si ma la waxoon sànq rek Eumeu Sène ku ko xam moo jiitu Balla ku xam ne xam ne technicien la waaw euh, dina songo dina mboot dina nooju dina pàdd bëre bu dina caxabal bëre boo foo boo yaakoor rek Eumeu Sène dina dina dina ko bëri Balla Gaye tamit kazalika ah benn def seen différence mooy comme li ma wax sànq rek day am problème ak pied droit mais bu la am boo ko tegalee pied gauche dafay mel ni kuy naan ndox si yow day ñëw rek bëttal la daal di ba euh, jar jargandoo la ak yow waaw soit ko mu tourné boo ko boo ko jëlee tamit boo moytu mu boot la comme ni mu boote woon tey jeune wala ni mu nooju woon Yékini mhm. voilà kon ñoom ñëpp ay mbërëntaan lañu waaw vraiment bu ñu bëree euh, ñëpp ay bëgg waaw ñaar bu ñu dajee nga xam ne dañuy bëree té buñ dajé waté nga xam ñi da nga sétane bëri sa xol daal di sedd. nañ seetaanaat bëri. han ah. mané ne dig saat bëri. han ah, ah. han d'accord tonton dégg nga aussi tamit ci ay euh, ci li nga xamante mom la père de gor wax papay Boy ci Moustapha gay ne da doon jappalé euh, ki nga xamné rek moom moy Boy Niang xam lépp loolu lan nga ci wax tamit. ba loolu loolu du degol Gaulle ci bi combat rek amna benen bo xamanteni amna ci problème Moussa Gueye si ay genre rumeur yooyu xaw ma kuñ doon xamal euh, ay rumeur yu yu demee noonu daal mais comme li ma sànq rek waxtaanu làmb la ah dégg nga euh, le ni ñu ko tuddati beneen euh, Mohamed Ali Ndiaye que da doon entraîné Boy Niang. Mm-hmm. voilà dégg nga te booy monsieur Mohamed Ali Ndiaye booy yaa ñu ngi koy dégg woon si Balla Gaye moom Moussa Fall ah ñoom ñëpp ñu ngi doon ñoo doon entraîné ball ñu retourné waat léegi di entraîné booy Niang. waaw lamb la sport la ah. mais yooyu tamit lu koy war a ànd nit ba mu neex la nga nekk ñokk dem ànd ak. bon ku si nekk ak sa jukko ah <laughs> waaw ku si nekk ak sa jukko euh, jàppal lii bàyyi dem ànd ak kële jaar si suuf ànd ak yeneen yi wax dëgg yàlla ku si nekk ak sa jukko man Amadou man <laughs> buñ ma xamee ba léegi ki may entraîner rek kii ko lay entraîner xaw xaw ma si. jàppale yi jóge fii dem jàppale jàppale yi kenn mosuma si dégg waaw ku si nekk ak sa ko voilà dëgg la père dégg nañ aussi euh, père jaw per jaw xam nga ko bu géejawaay mm-hmm. kàddu yi nga xam te ne yëkkati na ko ci mbaru géejawaay yi mm-hmm. ne mbaru géejawaay li leen mbaru Pikine yi rawee mooy dañoo déggal seen ay entraîneur euh, maanaam ñoom mbër yi déggaluñ seen ay entraîneur ba jàq na sax Sa Thiès lu mel ni xemee ci ah, koo xamante ni moom moo jiite géejawaay loolu taxalaat ci loolu aussi ngay jiite ay mbër tamit mu doon ay wax wax loolu doon waxtaan biir néeg nga génnee piñ ci publiquement di ko wax kooku daal sa jaww boobu daal ay waxam daal matul dóor say gune defet ñëw na day wax lu ko neex moom naka jekk waaw Alaaji Juuf la fi jëkkoon yore yaa te gaa nga xam mbër bi yalla juf daan nga naan yëkëti leen ma yëkëti leen ma yëkëti leen ma man entraîneur na ba su gis nga naan kat yi man yëkëti leen wala may daan sax may jibril yëkët sama loxo déedéet koku amateur la rek da nga japp ne ko amateur la supporter la day ñëw wax lu ko neex mais c'est du du sportif waaw nah, du jël affaire bi def ko ci carte sport. mais dañuy gis yeen ñaar da ngeen mën da ngeen am problème parce que des fois day génn di di di wax ci yow aussi tamit. waaw waaw moo tax loolu moo def ci carte bo nga koy jappé waaw da bi muy wax yi <laughs> waxam jarul jarul do ci sa doom <laughs> waaw dama ko c'est pas un sportif bo may waxal mo boo doon wax man kan nga demee ah, entraîneur naka lañ ko todi euh, xeyna Lamine Golo nga ne Lamine Golo entraîneur Balla gay mi ngi wax ak man ñi waxtan ci cadre technique ak yoy voilà mais ko xam ki c'est un supporter waaw si du du du du du du mosul mosul beure ah waaw dumbeur mbër mosul ñëw na doon supporter rek ba yàlla dajale ka euh, la ak yooyu mais Alaaj Juuf bi mu bi daan bëree ko ñu fi doon Alaaj Juuf kooku kooku la doon supporter ba dugg si làmb ak yooyu ba mun mu jot si Balla mais <laughs> làmb mbër mu daanu rek ñu indi la lay waaw ñenn ñi lay indil lay rek mais <laughs> duñ ñu ko si cadre sport ba ko tegee si cadre sport rek gagné da ngay rek ñu jàpp sa ñàmbu te téye sa bopp mais doo dégg yooyu doo ko dégg si Balla Gaye père kontaan nañ vraiment tey boo amoon loo xamante ni rek euh, moom ngay sànni rek ci diggante combat Reug Reug ñu tëj Reug Reug ak ki nga xam ne moom mooy Sa aussi muy ñaari xale yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp mën a bëre. Mhm. tey lan ngay wax ci combat boobu ku ci nekk. ah ku ko seetaanul laal doo doo seetaan combat bu neex boo seetaan di nga seetaan combat bu neex. Mhm. neex bu arbitre bu sifflé. Mhm. di gis dañuy lu ñuy gaaw nii rëng këng war ku si nekk day naan la yow man maa la maa la maa la dàq déedéet maa la dàq bëri dama lay la mën si bëri loolu ñoom loolu moo yàkkamti seen diggante ñaari xale la ñu ñaari technicien ñaari ñu am kattan lañu wax dëggal te mujj bëree mu neex moo tax man pour man buy at bi soufflé xoolal di ñaan tàng tàng duggante kii ah yargandal kii dugg fii kii dugg faa la ñu nga ñu weccee nga xam ne bi léegi ñaari mbir xam dañu naan dax jaxasoo nañ jaxasoo ba suuf si pënd bi nga pënd baa ngay wuri man daal loolu yaakaar si ñoom pour mën gis loolu si ñoom. voilà d'après yow ñaari mbër yi ku ci dàq bëre. waaw ah, ku ne yaa ku ne ku ne ngi naan euh, Reug Reug moo moo dàq bëre ñi naan Sa Thiès. Mm-hmm. seetaan nga leen ñoom ñaar ñëpp. seetaan naa leen ñoom ñaar bu bu subaa kenn dañu xam kan moo dàq bëre. yow laa laaj. man nga laaj moo tax ma la bu subaa moo tax moo tontu la si bu subaa bu subaa. Ah. ñu xam ku dàq bëre. Mm. waaw. <laughs> D'accord, content nañ tonton. OK. Ñu baye rek ngeen taggo ak ñuy sétane, vraiment c'est un plaisir. Waaw, di gërëm ñëpp di sant ñëpp rek di ñaan wax dëgg Yalla. euh ah. Mais tonton faté na gidi do amna combat dé. Waaw waaw waaw amna combat ak ak amna combat ak ak ak ni ngi koy tuddi euh ama ama wax dëgg Yalla ñu ngi pré ñu ci préparation mhm. di ñaan Yalla Yalla may ñu ndam. Mhm. Voilà, ñu ngi ci préparation bo ba légui demb rek eh, lañ mujjé entraînement. Cela est mo paré fi c'est le cela est fala fala fa non entraînement donc di ñaan yalla may ñu ci ndam ñu genn ci euh, complètement défaite bi ñu jëlé pour ñu remplacer ah défaite bo am yalla may ci ndam ñu ci victoire. Mm-hmm. mais ngeen tassé xalé xalé bu ma a bëri tamit. wa xalé dom dom doomu mbër la ku mun mbër la jamba la ma tey ko ci digg dolem mm-hmm. waye ñu tamit ah amna na fi def ci lamb ji tax taxa doon di ka xaar bu mu ñew ba bés ba inshallah allah. Ah, bi ci def nak di ñaan rek ah wax deug yalla lamb ji misik bi dal daf kay moy bañ mu yak ak mbër yi daal war nañu leneen lul gardu roo yi di ci biir lamb ji wax deug yalla lamb ji teel a sifflé ñuy teel a teel jeexal ñuy teel a pare lu ci gëna bari ñu wañi ko parce que misik wax dëgg yàlla boo ko euh, la sey joxe <laughs> yi indi yëpp ben da nga gis ben rek ci siy joxe wala wala ci dess yëpp par des fois du joxe kon matul basé entraîner mu may wul entraîné ah mystique mu na may